beneen spécial promo tabaski euh, tay nak ñëw fi nga xamantene moy mooy Fat Up ñëw seet si euh, ndaanaan boo xamante vraiment xam-xamam match na ci limu muy yëngu ñu diko wax Mado épice alors ku ne xam na ni tabaski nak buñ ci ah daani soxla xeeti saf safali yi and ak ndawal yi loolu tax ñëw set ci tay Mado Mado ñu naa la. Batou li ngi lay fay. mu bay la nga ñu yor internet yi lay seetaan. waaw ma ngi day fay di do nuyu yàq sa équipe technique bi nga andal mhm. di nuyu wa Sénégal di nuyu rawati na wa internet Chronique TV. alors Mado tey ñu ñëw fii seet si la war waxtaan ak yow ci épices yi nga xamante ne yaa ci yëngu. Mhm. Mado kan nga commencé dugg ci li lii. Euh, Batuli Mado épices naka ci corité bi la judd. d'accord ci corité bi nii. waaw ci corité bi lañu commencé. Mhm. ñu né pourquoi pas def Mado épices. Mhm. comme que tay la femme sénégalaise elle a tendance à laisser tomber les cubes te ku bàyyi cube di nga di nga kaani mhm. di nga poobar di nga laaj mhm. ñu ne mais Mado épice Hol mhm. qu'est-ce que ça va donner et macha allah ci korité bi Nous ñu jotoon ci def lu ay ñu jotoon ci liggéey lu jaar yoon vraiment ñu nous disons il est temps que nous nous nous relancer la marque Mado épice xool nuñ koy nuñ koy défarer, bu mu gën a rafetaat waaw gën ko structuré ba euh, population bi gis ci seen bopp d'accord alors nous ñu nee euh, Mado épice déjà tabaski ak korité deux mois là, mhm. euh, lan moo le pousser à ce que nous dugg ci T'as mhm. tey li ma ci poussé euh, Batouly du lenn lu dul que la femme sénégalaise elle a tendance à dire stop au cube. Mhm. yaa ngi koy wax waaw cube femme yi bàyyi ko mooy réellement xamuñu composition bi du ci nekk. te tey ñun ñëpp xam nañ ni que laaj bi dañ koy bay. ñëpp xam ni que lay vert muy mel oignon vert kaani salade yooyu dañ koy bay. c'est-à-dire c'est bio. Mais pourquoi pas lancer quoi?

yomb utilisation mu ñëw ci cumin bi kazaalika noonu nokkas bi tamit sachet yi aussi maa ngi gis nga mélangé c'est euh, gis ci genre lii lui, dafa mel ni lii dafa mel c'est de c'est de l'ail waaw lii mooy purée d'ail c'est ça la purée d'ail mhm. yomb utiliser ba dee mhm. c'est à consommer au frais mhm. doo de doo xool de ah, doo def dara voilà consommation au frais là Mengo nga ko yore des mois et des mois du yàqu. Mhm. waaw alors léegi Mado ma bëggoon ñëw ci élément de de base parce que léegi maa ngi lay dégg ngay waxoon conservation. Mhm. alors euh, lan mooy sa élément de base. Mhm. hein? parce que xam naa ne sax doo joxe nag xeetu baax baax yi ah yaa xam ni ngay ni ngay tojee sa bopp dina. mais élément de base yi nga xam ne dina tax tey conservation bi mën a yàgg. Euh, déjà Batouly balaa ñuy dugg ci élément de base bi euh, laisse-moi t'expliquer que li nokkos bi. comme ni ko joojo di waxee c'est bio mais man dama naan c'est sain ndax amul ben produit chimique té élément de base bi du lenn lu les herbes fraîches et des graines aromatiques lool mo nek ci nokos bi et du sel pas plus ni moins. d'accord alors ba de ñu fabrication bi diggante nga dem jëndi euh, euh, say ingrédients euh, yu frais mhm. ah, ñëw raxas bi mhm. ah, ñaata nit ñu ñoo nekk ci sa ginnaaw waaw daanaka batuli am naa benn équipe bu restreinte mhm. nga xamante ne ñoo mais nak bu démé ci walum raxas bi ci def na d'accord muy raxas ba muy ba. Mhm. sama ma. c'est important. ñu ñew ba mhm. ci ba ci euh, bagage yi boko Vous boo sa bop ba paré war ko def ci po yi. Mhm. Euh, la moment bu bu metti la. waaw atroce la. fini

dangay jël sa produit dugal dugal ci ci ci réseaux sociaux yi mm. xamul ku lay commander mm-hmm. sa produit xamul fu muy dem donc war nga ko mën a defar de telle sorte que bu démé ñu mën la

ci ko xamantene da fay togg mu ngi jëm ci tabaski déjà. Mhm. Euh, ma ngi seen fi ay pots 500 grammes. pots 1 mhm. kilo. mu daal di nu mu war a demee par rapport ak koo xamante ne dafay waaw euh, Mado epis déjà ci nokos bi bu ñu ñëw ci nokos mi ngi proposer ay seau de 2 litres. nokos mhm. xanaa bari na. waaw ak seau 1 kilo ak seau 500 grammes.

waaw ton bi mu mel de dañ ko dañ ko aromatisé. ba mu am bu bu tamtami. waaw na daal. Ah, Le blé nee ma seen. lii waaw boobu purée. purée la ah purée daay bi. Mhm. d' gis nga de am man de euh, Mado Mado ci soli sama nga dañu aller ay am je la dudul. Mado pot bi pot la. bi bi sept la. lii sept épices la mais du sept épices bokkul ak sept épices yi ñuy jaay. bokkul ak sept épices yi ñuy jaay. Ah. ndax ñun suñuy sept épices dafa naturel raxuñu ci dara. d'accord sept épices yi produit naturel. bay dunde daal nga wax yow. bay dundee maa la wax lii. Macky dina la woo ci wetam de. noonu la noonu la war a def dañ nekk ci jamonoy fast track sax. Mm-hmm. ah ok waaw moo tax ñu indi lii yëpp. pragmatique express waaw express sama xam nga da ngay liggéey wàcc war a am nañ ay dañuy jaay ba bu nekk ci biir bu nekk ci biir suñu biir chronique. Ah, xam nga jox mi fi ne maa ko wutal jëkkër booy sëy war a waaj te comme dafa gëm liggéey war a waaj tardeer dafay compliqué. faaw yi faaw mu am madu épice ne balaa moo egg tëngéej. 22 euh, jot nga bëgg a te xam nga daal di dafa compliqué. du sotti day garaaw dafay compliqué. bilaay yaay ndimbal jeeg ji ah man daal ma ndimbal jeeg ji alors léegi joxal sa adresse ak lan ngay wax sa clientèle. Euh, adresse bi déjà Mado Épices mi ngi nekk Fann Ok. Mhm. Dakar. 65 angle 70 sama clientèle li ma wax rek nañu tabaski bi ba nañu mbirum dernière minute. Ah, ñu ci clientèle ah, lan wax sa clientèle yi déjà man dafa international hein produit dañuy dem fu mhm. xam nga sama mbokk yi diaspora bi ñoom ñu épices yi nga mhm. mhm. vraiment. effectivement tay épices dañ ndax jot nañu am euh, clientèle ba États-Unis macha allah ado épice dañ ko yóbbu ba États-Unis bu fay def maa la wax li te la demee sax mi ngi dem ba États-Unis Dakar nag moom wër na Sénégal. Mhm. dem na Ndar dans toutes les régions Mado Épices nga fay dem. waaw maa ngi nuyut aussi waa waa waa Ndar au passage ñoom it bàyyiwuñu de. Mhm. korité bi ba tey. Mhm. te ñu ngi woote naan seen seen commande tabaski la ñuy xaar. Euh, Mado yow sa origine Ndar la. sama origine waaw mais Ndar ci côté yaay mais séeréer ci côté papa. yii métissage bi dafa fort xoolal ça man maa ngi doog comprendre ça nekk kii lii tax mu traditionnel <laughs> ah gis ngeen traditionnel bi nu ma ko waxee da pour diisal ko kii il faut mu traditionnel. waaw waaw alors euh, léegi yan jafe-jafe ngay jànkonteel euh, ak client parce que nag xam nga clientèle yu jigéen dañoo dooy waar sama genre gi da leen di defal un kilo ñu ne la un kilo bi matul ah.

xanaa ñu ne ñu sant rek. waaw bu ñu santé yàlla julli ci yonante bi sangu sange yi. Mhm. Euh, maa ngi remercier bu baax bu baax waa Chronique SN aw ma seen fay. di remercier ma famille et plus particulièrement sama yaay. Balla Mamou Sarr Anta eh. Abari Gueye ak abaari Sarr. Eh. dafa dafa nekk caat ba pare yor yor jikkoy taaw. donc euh, Khoudia Sarr maa ngi lay ñaanal yal sa fan gudd. yàlla bàyyi la fi ba ci kanam ba nga mm. fekkee ba ma doo épice bi teral la yóbbu la mag ci kàttanal sunu borom mm. am nañ mbëbët bi te yàlla na sotti <clears throat> di gërëm it sama sama papa ndax euh, sunu bos dafa wàññeeku yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana waaye kim ñu booleel tabaarkaal la jooyu ñu papa de déedéet tonton Ousmane ñu ngi koy remercier bu baax di ko sant yàlla gën ko may taxawu moom tamit euh, di remercier Jojo Mhm. ndax tay mën naa ne initiative bi moom la moo am xalaat bi donc kooku aw ma fayam. dafa bokk ci man. donc bu doy waar la yàlla. donc je la remercie du fond du cœur. Mhm. Euh, remerciement yi tamit euh, Batuli. Mhm. tey dama ko yóbbu ci benn nit boo xamante ne c'est une personne qui m'est spéciale. ndax tey lii yëpp moom la. wax dëgg fa neex yàlla moo poussé à ce que ma entreprendre. boo waxee mu ne Mado nit day gëm boppam boo waxee ne autonome autonome oh. c'est-à-dire lance-toi dans l'entrepreneuriat et tu te lances nga gëm surtout ça c'est important mm-hmm. gëm ni Mado épice bi dinañ ko dégg fu ne donc nit kooku maa koy remercier elle se reconnaîtra mm-hmm. maa koy ah, eh. vraiment c'est une personne. J'ai une personne. Ah, personne mais elle se reconnaîtra. Ah, euh, elle se reconnaîtra. C'est la personne. Mom, na xamné li yep mom la vraiment moy jël alalam di ma jox Moy jël ay ma jox Euh momay ma bu une vidéo qui parle de l'entrepreneuriat mu une image qui parle de l'entrepreneuriat mu c'est-à-dire il fait tout pour te booster pour nga dem pour nga mm-hmm. gëm sa bop donc koku mang koy nuyu bu baax diko et je lui fais un gros gros gros gros coucou. Mm-hmm. Mm-hmm. Jena. alors nga jox ñu adresse bi. waaw Mado épice mi ngi fan rue 65 angle 70. tey ku pour am ci yu baax yi waajal tabaski bi sans stress. Je ngay woote ci 77 275 92 82. Je ngi aussi sur Facebook et sur Instagram Mado. M A D. apostrophe eau épice. nga suivre ñu sur euh, Facebook. Mm-hmm. ak sur Instagram. kontaan naa maa la gën kontaan ba tuddee. mu ngi noonu Mado nag danga maa yëngal ndax dangaa wax loo xamante ne dafa dafa doy waar muy caat boo xam ne daa yor di koy taaw dañoo ah. bokk feebar. sama yaay ji Ndour Waly Mbergane yow tam yal na la yàlla jàmmal yàlla sàmm la. sama yaay ji ah, la moom nga xam ne caat la waaye taxawaay bi mu am. àddina yëpp seedal nañ ko ko kon nag yaa booy yow xam nga man xam naa dama lay bàyyi yal na la yàlla sàmm alors tey nag dañuy remercier ñi nga xamante ne ñooy équipe technique bi ñu àndaloon Marietou Ba madame Ba di remercier suñu euh, lakkal ah <laughs> joxu jaaga faal nga xam ne vraiment moom itamit ku la fonk la. ndax euh, mu ngi ñu topp non il faut ñu dem tourneel ma doo xam nga nag moom euh, ndar-ndaram gi daf koo daf koo fonk ba ku mu dégg ne ndar nga jógee rek day bëgg vraiment. jàppale la alors mu ngi noonu di remercier nag tey nag lii damay doxantu ba diwaanu euh, états uni yóbbul ko sama mag Rokhaya ñas Niass Kumba Abdallah vraiment mbokkum nañu Cheikh Niass sama mag yooyu nga xam ne samay seddoo lañ moom yii dina ko soxla kon xam naa ko ci commandé yu mm. parce que moom comme États-Unis la nekk vraiment du am jot lu bëri yii mm. dina ko soxla aussi di nuyu sama toma Zara Niass moom tamit ngi nekk ci diwaanu Nigeria. di ko bu baax di ko euh, une prochaine fois ci seen beneen numéro noo c'est sur Chronique